ngeen def ça va bien bien merci xanaa koor gee la jàpp koor gee ma jàpp yow lañ soxla woon ah ci bismillah ñëw leen ci biir non non non fii baax na ñëw leen nit ñëw leen dafa tàng dafa tàng dañu woor tout ça kon xaaral indi leen seen d'accord koor kay gi daa nit man de bu woon yow man duma ñëw fii kon gi tey mayewul dara kon gi daa gañ dama ñëwoon seetsi la parce que li xew si diggante ak Bella neexuma dégg naa jàppantewaan ngeen ci kër gi te loolu warul di am ndax yow ngañ yaay taawu kër gi ñu bokk benn deret bokk benn meel tey gisuñu baay gisuñu yaay yow la gis ngay suñu mag di suñu kilifa kon nag dafa am yenn yoo xamante ne

wane ni kuy defante man lay defanteel mooy àlla njaaxum te nag man du ma moroomam xam ni mooy caat moo gën a tuuti ci kër gi te moom yàlla dafa def mu taq ma su ma nekkul fii sama xel mi du dal moo tax ma bëgg jàmm seen diggante ngañ dama bëgg kii mu jox la ci respecté la ndax su ma fi nekkul sax nga mën di ma ko xoolal Bella jógal nga baalu ngañ ak boo yoroo ndax wax kat boo yoroo yàlla yor la baal jàppalu ma la dara jàmm war a am jàmm war am dëkk ci jàppalu ma ko dara sama rakk la yow néew fi fan yii da ñii ñii newuñu fi sama waa kër dem kenn newul ci kër gi ab sàcc tëbee ca miir benn cirib ci biir kër gi mu yuuxu foo toll yuuxu dellu yuuxam gi foo toll dégg yuuxam gi wuub sàccee ji mel ni tullek màlle ma ne ma ni kurbet sama buntu bi génn ñaq tooy xëpp ci dig diggal bi la jàppee sàcc bi ci digëntu ruq see ak fee la ko karkor lo ne ko niib ak mom lu baax duma ko dumay métti ci la ma sàcc bu weexee nan la tuddu ak fan la dëkk su ma waxon moy kan gën dar seen gémmiñ motax man leen sét leen bu baax lay dugg fi na ngeen baye xel ñi dugg fi ndax koñ bi am na ñu fi dëkk ñu momu seeni loxo mën nañoo ñëw nak bëcc nak solo nak di ci kër ci kër fekk ni moomul seen seeni loxo ay loxo yu tiitaru la ñu yor. loolu c'est vrai man. dan laa bokk ak yéen bokk benn baay ñëw bokk deret waaye yéen seen kanam daa am nu mel nu sama kanam melul xool leen seen kanam xool sama kanam nanu xoolante face à face face to face ngeen xool sama kanam regardez ma bien moo xool leen regarde leen bien ndax mel naa lu ngeen melul mu joxat ma baaraam ca xuloo ba kat ni ma sa kanam gi ni toggoon sa kanam ni toggoon war na ma koo wax. ji koy caat rek. te koo xas mu xas la man it ma mer ne ko sa kanam ni darta ñaa sa kanam nii la def ah moo ma xas ma xas ko. waaw waaw mais da xam ne moom caat la ji koy caatu. jàppalu ma ko dara koo bañ doo ko wallu. koo bañ doo ko wallu. du loolu tamit moo ma indi donc man dama ñëw pour deux choses peut-être lii moo doon benn bi. mooy première chose. mais beneen bi. yàlla dafa def ci sama wàllu liggéey daaw ba xen maa ngi liggéey

bu ngeen liggéeyatee di denc ren ba déwén alal ji fekkante la ngeen liggéey denc ko te laalu leen ko asaka war na cee génn ñaar téeméer yu nekk nag génne ma ci juróomi dërëm waa yàlla jox ay milliards ni la ñaar téeméer yu nekk ma ci juróomi dërëm te yàlla gën la baax foofu ndax moo la may milliards doo génne ay juróom gis nga ñi nga dégg ñu ne la diw ca marché central bitigam lakk na wala diw mi rom fii kat ay milliards la yoroon te yorutul dërëm yàlla da leen jox teraanga ni leen génne leen asaka ñu lànk yàlla nag ëpp leen fula fuuf taal alal ji ñëpp perte comme yow na am nga xalaat bii santal yàlla ndax boo génnee asaka sa alal yokk nga génne asaka sa sa alal am kaaraange du yàqu mukk billaay yàlla ko wax am enveloppe bi sax man maa la ko indi loon jërëjëf quatre cent mille francs la hmm? quatre cent mille euh, xam nga siin jubóor ak mën a am moo tax billaay mbokk foor gis nga mbokk soo ci doxee jàmm wala nga wax ci lu rafet wala nga fekk ñu xuloo nga dox ci ba ñu juboo daanaka looloo yàq dàqal yàlla lu ne fi mu ne quatre cent mille nga ma jox yàlla kontaan na quatre cent mille yi nga ma jox malaaka yi kontaan nan ndax lu tax danga koo def fi nga ko war a def ndax sa mbokk nga ko jox ndax lu tax danga koo def ci weer wi nga xam ne moo gën ci weer yi muy shahru mu mubarak kon ñëpp kontaan nanu te kat soo ko téewoon génn ci mbedd mi dajeeg nit jox ko fa kenn du la mere de ndax sa alal yaa ko liggéey waaye def ca fa nga war a def te fii nga ko def nag fii kon sant yàlla yàlla na ko yàlla yokk yàlla na ko yàlla ful yàlla na doon ay bii màkk ba ñu ma mhm. bañu ma bañu ma bañu ma bañu ma il m'a aimé xanaa léegi jubóo nañu ñu wàññi xasante <laughs> man daal siin siin daf ma woo sànq ñuy waxtaan mu ne ma après dafay dem mu génne asaka mu génne mu génne asaka bi mm. moo def ginnaaw nag soo koy jox da nga jox ko ko yellool. gis nga ngóor ne ci daara ji xawma lu ngeen di génne asaka waaye na ngeen ko ci jox ndax mën naa jàngal tey day sonn ci xale yi te ku mën a jàngal ndax xale bu mu jàng jàngal nga mokkal te kenn dimbali wu gis nga ñii di liggéey yàlla laa xamul lu tax nit ñi di leen romb duñ leen dimbali. am mandaari la ñuy fekk mu tekki dara jël seen i million di ko xëpp te néegu bi yàlla bi ne nii wala ñuy def ci xale yi ci bopp xale yi xam-xam kenn du leen dimbali. léegi nag. Euh, asaka boo koy jox danga koy jox miskin néew di doole ku loxoom jotul ginnaawam bala ngaa lekk fu ne ngay dugg fu ne ngay ñaan te amoo dara da ngay lijjanti ba sonn miskin nga man ko comme que miskin la nag te miskin la dafa wax ñu dimbali ko na la jox sarax bi loolu rek la idée bu rafet nag la buñ ci kiyoon rek ma xalaat loolu pour bëgg suñu diggante raf tax comme ko miskin nga rek daal li ma bëgg dégg ci seen wax bu fekke comprendre comprendre nako bax te mu leer ki lu ko tax a asaka la asaka ngeen ma jox. asaka la miskin daal ngeen jox asaka. miskin waaw non t'as pas compris. ta pas compris ken lay tappa kañ laay tappa ta pas compris ngeen yor seen gàndum enveloppe jox ba 400000 en tant que miskin deeng nga li nga wax. waaw lool la wax ko que ñun yalla ngi ñuy dimbali. waaw da nga son miskin nga du lool la ñu jox la ko. kon yeen la yalla signal contrat pour dimbali leen man ah. bokuma ci contrat bi yàlla yàlla dimbaliwuma. yàlla mi di dimbali moom ay dimbali déglu ma fi ma wax la làmmiñ du lekk mu rooma làmmiñam te ñorul gis nga 400 mille yóbbu ma fenn man du ma miskin ëppale wu leen ma dara sañsewu leen lu sama jabar sañsewul man chef de quartier laa nekk ci koñ bi lu fi lëj maa koy lijjanti bis bu ne ñu tegal ma fi ay ngox ginaar yi mool ginaar yi baax lañ ma tegal fii ginaar yi tubaabe ma laal ci ba baax yéen ngeen jël ay mbaxal booli mbaxal ngeen di fatu yéen heure bu ngeen génnee rek ngeen am ndogu lu baax bu ngeen baax lawul da ngeen di fottu man faalaw ma leen lekku leen lu ma lekkul wala ngeen jël ay mbuus jaar ci bi wis ci diwlin mel ni ku jënd woon dibiti ay damiti birige ci ne xam nañ lépp ay jaam ngeen sang leen du leen tere dooni jaam heure bu ñu foogee ne mi ngi wàññeeku nag seenu jaam day yokk mënu leen a fexe ba nekk ay gor yéenewu leen ma jàmm man nag du ma lakkatu asaka ndax yàlla bàyyiwu yàlla mi leen di dimbali man moom may dimbali. ànd ak ñun bu weesu lu ñu yóotu jot ko yàlla. lan ngeen am lu ma amul wala lan ngeen mel lu ma melul. bari na. yow nag lii la koñ bi jëwee naa la ko wax lii la koñ bi jëwee dinaa la ko wax nga ni jot du jot dara noonu yow sa ange yi nga jël ñuq ba mu fees dell nii mel ni da ngaa jekk wala da ngaa ami laaf amooy boo ko ti mi wàcc mel ni mbuusum ndox bu ma ko ñuqatee léegi mu ni mu ni charette. yow amoo loo wax. yeen ñi nga xam ne lekku leen ndox ngeen di naan ak anabolisant ñu foog da ngeen lekk lu neex ba am yaram te jàpp cim anabolisant anabolisant yow xel yow yow ñu ñuqee billahi rew mi pay rus bo ñu ñuqee rew mi rus da ma mos romb rek ma ñuqati ko nak da ma mos romb ma ne ko ruset ñepp xam li nga mel nan la nga melni bala taxaw de ko de amu lan ben jox wàcc leen sama ses jox ma ngi dara anabolisant anabolisant yow xit xam nañ lépp dañ bi joroo si biram ngay wii ñàkkatu jom bi jaam yi ngeen doon doolal sa nekk ay gor traite ba keroog ngeen dee traite sama defet rek gën defet rek bala ngeen a kontaan ma am defet waaye li ngeen di woo du ngeen ko gis ndax yàlla musuma def musuma may defeet